بلا إماتة ولا تنازع ولا شماتة آتاني الباقي الكتاب الأزمة ولا ألاقي كل من تزمه عني جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا baaxam ba nu àggale woon liggéeyu at mee weesu ci waxtu woowa rek lañu dooraat liggéey bi te xam ne lii du lu ñuy xaare waaye nag du lu mën a xaare ca leen doore woon liggéeyu commission culture bi yépp te mboolem koo xam ne ñëw nga fii fi bërëb bi lii sa waru ci li jiitu mooy ñi nga xam ne ñoo waral bés bi nga bàyyi leen xel bu baax ci géppuk anam liggéey boobu nag ñi ci gën a fees ci ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon liggéey bi incha allahu taala daanuñu ci lim ñenn rek ngir ñu mën a yóbbaale ña ci des waaye di nuyu sunu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo teew fii fi jataay bi di nuyoo nuyu boo xam ne ci turu boroom dëkk bi lañu koy nuyoo di ko jiital euh, ci ka xam ne moom moo ko teewal si fii di sëriñ Mouhamadou Moustapha muusa waaye di nuyu kilifa kër gi muy quartier bi ci sunu kilifa quartier gi sëriñ Baye Balla Gaye xafidahullah wa raa waaye di nuyu bu baax kilifa jataay njaay di sant bu baax ak di gërëm ñi nga xam ne ñoom leen àndaloon liggéey bi muy liggéey boo xam ne booba ba léegi yéen leen ko àndal di leen sant bu baax waaye ci turu mbooleem sëriñ daara yëpp buñ ci tuddee sëriñ Omar Dia xaadimul Qur'an sëriñ Mbacke Diop mi nga xam ne at mu ne mooy jàng xatmu bi waaye di nuyu sëriñ maam Cheikh Ndiaye alim ak waa daara sëriñ maam Cheikh Seck ñëpp ci mbooleem turu sëriñ daare yëpp. di wax ne ñoom lañu ñu àndaloon ak liggéey bi saa yu ne waxtu yu ne ci jamono yu ne saa yu waxtu yi jotee ñu fas yéene leen koo dégtal fësal ko ngir mu doon firnde joo xam ne ñëpp danañ ci bàyyi xel ngir yokk ci seenu pas-pas ba kenn ci ñun ëllëg mu defe ko nanu ko bëggee waaye nu kawe kawe njort di ñaan yàlla yàlla no yàlla boole nangul ñun ñep waye ci noonu lanuy diktele mbolo mi lim bi nga xamne mo leen fi am ci limum alquranul karim toll ci limu 15000 كامل القرآن alquran 666 كامل القرآن cent soixante six kaamili alquran muy fukki junni juróom benn téeméeri kaamil yu teg juróom benn fukk ak juróom benn ci ay kaamilu alquran yàlla nu yàlla boole nangul waaye nag ku ne alquran doo fàtte it al istixfaar kon astaxfirullah muy istixfaar yi moom itam mi ngi toll ci limub 74024 وينك صلاه على النبي مو متام ميغي تولي سي 45770 لمو القصائد القديميه تموي قصيده ميغي تولي سي 1503 موي 153140 تي لي مو قصائد الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته امين واي لي مو الاسماء الحسنى نيغي تولي سي 265091 واي مبوكي ليغي بي ييب نوغي كو اندو نك نيغا خامني ñooy jàngkatu alquraan yi ak jàngalekatu alquraan yi moo xam ci biir mbooloo mi ak ci bitti mbooloo mi ci gox yu fasante ko mbooleem fu waay xam ci réew mi mbooleem région yi nekk ci biir Sénégal yépp ci turu njiitu Serigne Omar fu ne ay kaamilu alquraan limi neen ko fi andi ko fii fi bërëb bi ngir dégtal leen ko lépp aju ci ñaanu way dawli yi ngir ñaanal leen sunu boroom defal leen njéggal ak yërmande waaye lim bi nga xam ne moom ngeen fi dégg ci xasida yi sëriñ Muudu Sàmb moom mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi ñuy wax fàttali ko way dawli yi noo leen koy bàyyiloo xel bu baax muy kër goo xam ne ay lim leen dugal yoo xam ne yëpp dafay aju ci bis bi muy ñaanal way daw lii noo ngi koy bàyyiloo xel mbooloo mi yëpp ko defee incha allahu taala kenn ku nekk fi nun fas yéenee bokk ca liggéey boobo ba kenn dootu la man ci bés bi waaye nag di sant itam waa kuréelu tuxfatul mutadarriin bi nga xam ne ñoom itam saa yu ne ñooy ànd liggéey bi baax baax ci sa turu mag ju baax ja sa turu taalibe ba sax boo bëggee eh, dina xamal ne moom yéen rek la fi nekkal jiit na di ànd ak yéen kon nag fu ngeen ci nekk fu ci nekk rek doy ngeen ko fa sëkk bu ko defee ñun ñu doog a ñëw nekk ca gannaaw ànd koog yéen ndax loolu rek mooy mooy yoon wi loolu rek mooy taalibi gi loolu rek mooy pas-pas wi kon Serigne Cheikh na eh, jottali rek. mbokki taalib yi nga àndal liggéey bépp ni leen sëriñ bi laal am na ci yëg-yëg ci liggéey bi ca fu mu toll mi ngi koy ànd ak yéen ca du mus di jóg di ñaanal rek di ñaanal sëriñ Moussa ñoom ñii di mag ñi suñ borom gën leen fee yàggal gën leen a dëgëral ba nii ñu leen di teetee ànd koog yéen donte dañu jàpp ne ni yéen a leen gën a féet ak ndaw di seeni doom di seeni sët ñu ànd koog yéen loolu sedd na xolam lool ndax it ca rafetloo na ko njort bu baax a baax kon nag ñu ngi leen ñaan suñu boroom gën leen dëgëral gën leen wéral ba ngeen yàgg ànd liggéey bi yéen ñiit yow ñi nga xam ne yàgg ñoom yenn ànd liggéey bi ñu jiitale seen kanam ngeen seen jëwriñ mu ngi leen ñaanal suñu borom dool leen dëgëral dool leen taxawu ba dara bañ a benn benn pakk bañ a nekk seen kanam bu leen tee àgg fa ngeen jëm sëriñ bi gàttandul leen boppam ak ngërëmam eh, loolu rek la leen ñaanal sëriñ bi gàttandul leen boppam ak ngërëmam ndax xam ne lii moom bu fekkoon ne gox bu ci nekk lii rek lañ ko wooyee mu cay yable dana dana doolee sant yàlla ca lam santoon yàlla xam ne ni njaboot giñ ko dénk ña nga ca la leen war ca loolu nag bu ngeen ko defee da ngeen ko noppal moom mi nit nekk ci bopp bi da ngeen dalal xelam kon laal ngeen xam mi ngi koy ànd ak yéen njabootu Cheikh Khadim gépp nga ànd ak yéen di leen ñaanal suñu borom dool leen dëgëral dool leen taxawu kon nag li ci des yëpp sa ñaaroo noo kon ñu leen sant bu di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh